bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu di len ziyara, di len balu haq, di len bal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal mu mel ni seen mbokk oustaz Makhtar thiam lañu dalal fi ci an tv ci benn émission boo xamante ni ko zikra fi ramadan zikra nak kuko tuddu nak xamni baatu arab la mooy baatu fàttalante rek ndax sunu borom waxoon na fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin kon ñu ñëw ci weeru koor gi rek ci émission boobu ñuy wax zikra ñu fàttalante ak weeru koor bu ko defee nag ci biir nag émission boobu dinañ ci jàngale lan mooy mu koor ci boppam nan lañ ko déggee ak nan lañ ko gisee selon lislaam bu ñu ci jógee dinañ jàngale li nga xamante ni moom mooy historique bi te moy koor kañ lañ ko faratal suñu ci jugee inshallah dinañ leen jangal bu nexé yalla lan moy ngënee li nga xamanteni ñom ño am ci koor ak li nga xamanteni mom moy mooy njariñal koor suñ fa jugee inshallah dinañ leen jangal charte yi nga xamanteni mom mo lambo ci koor ak kan mo wara koor dinañ ci ñew waye ak lu mëna am rek ñu xamanteni as sawmu huwa al imsaku anil akli wash shurbi wa jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi shams manam koor boko beugé xam ci gattal rek muy nga téy sa bop ci lepp luy dox sa koor bu fajar jotee ba jant bi so mu delu ci walu lek lelu ci walu nan delu ci lanen lo xamanteni da fay dox sa koor ndax koor nag mbokku jullit du baña lek rek du baña nan waye timit amna yenen yo xamanteni dañ la koy ayé motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna lu mu jàngale won mu ni kep ko xamanteni bàyyi lek ak bàyyi nan rek la mom koram googu ludul mar rek la cey jele kor googu nga xamanteni mom lañuy jàng nak sunu borom waxna ben aya ya ayyul ladzina amanu kutiba alaykum as siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum laallakum tattaqun sunu borom neena na yéen ñi nga xamanteni man ma len bind yeen ñi nga xamanteni yeen yéen ma gëm nee na prescriral na leen benn ordonnance ordonnance bo xamanteni nak ginnaw bima la consulter ba pare jox la mode d'emploi bi su fekke nak utiliser nga ko ko à la lettre li ci am moy guérison mom moy at taqwa motax mbokk julli dinañ def ben taxaw koor gi di premier au 30 ben baat la ci suñu borom soxlo muy baatu at taqwa moy ragal yalla waye yalla nak kenn du ragal da fay nek ko xamanteni ku ñuy baye xel la ci fépp fo meuna nek fi kulli makaanin wa fi kulli zamaanin bu ko defé nak niñ koy contextualiser ak jamono ñu xamni wéru weeru koor campagne la ku tuddu campagne di nga tuddu jouru élection muy jouru vote jour élection nak mo nek li nga xamanteni mom moy laylatul qadr ta jàngal nañ ni laylatul qadr khairun min alf shahr campagne bobu nag nga xamanteni mom la tuddu sank sànq dina am loo xamante ni code électoral code electoral bobu sunu borom ñu ko teunk ci ben aya bo xamanteni moy mooy hudan linnaas wa bayinatin min al huda waye nak faw mu am nak jongante bi ñi nga xamanteni ni ñoo nekk parti au pouvoir ak li nga xamanteni mom moy parti d'opposition parti au pouvoir nak moy an nafsul mutmainna ta sunu borom waxon nañu ko ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya waye parti d'opposition bi nak moy parti bi nga xamanteni moy an nafsul ammar kon an nafsul mutmainna moy bakkan bi nga xamanteni mo lay xey pour nga def lu bax pour nga jëm ci bax moy bakkan bi nga xamanteni mom la yalla gëreum mom la yalla sant waye nak banen bakkan bi nak moy an nafsul amara bisu moy bakkan bi lay xey pour nga wax lu bon pour nga def ci lu bon kon ñaar yoy nak ci weeru koor gi ñu xamanteni koor gi ñaari opposant yoy moy nga xamanteni mom la waye mbokk mi bul fàtte ni sànq baat buma la wax nga japp ko retenir ko foo mën a dem ci koor baatu taqwa dafa nekk loo xamante ni lu am am am solo la waaye ñoo xamante ni natiru doomu aadama tamit démb ak bëkk démb mooy dafa doon lekk mais lan mu ñu poussé ba ko weeru koor ñëw nit du lekk sunu boroom waxoon na maam aadama ba mu dëkkee àjjana ni ko inna laka allah tajua fiha wala taara kon ñu xam ñu dund doomu aadama warul xiif mais li koy permettre muy xiif dafa am luñ ko bëgg jàngal dafa am luñ ko bëgg wan dafa am lu ñu ko bëgg a bàyyi xel parce que koor dafa ñëw pour nekk koo xamante ni pour modérateur la dafa ñëw pour modérer dafa ñëw pour équilibrer li nga xamante ni mooy suñu dund te mooy bu sëll yooy bu giir dem neen te mooy alwasatiya boobu kon mbokk jullit yow mi nga xamante ni yow yaay yaakaaru ëllëg yow mi nga xamante ni yow yaay euh, représentant yàlla ci kaw suuf ndax sunu borom waxon na inni ja'ilun fil ardi khalifa motax ñu wara déglu ay recommandation déglu ay orientation waye ci li nga xamanteni moy alquran ak sunna ki nga xamanteni mo ñewon fi nak mo doon seen mbokk al oustaz Makhtar tiam ci émission bo xamanteni moy Zikra ci Hann TV bu ko defee loolu mooy suñu première présentation di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal topp ak dégg yàlla ñu yàlla defal tawfiq na najaax ci beneen numéro ci beneen émission wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.